Mansour mën a mën taxaw. Mm-hmm. Oh. ak Mansour aatu. Mm-hmm. jàmbaar la joo xam ne ci. Mm-hmm. Cheikh Abdoulaye sa ko créé. fii leen la lewe nag ci Ndakaaru. xam naa ni Touba dëkk bi yëpp génn nañu. maa rajo yu bari ñu ngi may woo jokkoo ak man. Euh, euh, ma bëgg ma doon wax rek Ablaye Diagne. Mm-hmm. wala Mar caméraman. Mm-hmm. ñoom ñëpp euh, bu ñu mënee dem. Mm-hmm. ñu dem. couvrir ko jël ko. aatu dafa dafa dafa yar as Hizbut Tarqiyyah. sàkk na kàngam yu toll ne ñoom. sàkk na xale yu man li man. aatu leen waaye. koo gis bu tarxee boo gis muy dem aadoo nga ci biiram. waaw waaw waaw. Mhm. xam nga nit ku ne am nga fukki mbubu wala gaal yu ñuy ñaw. Mhm. gis bu tarxee mel mbubu la am. Mhm. waaw. muy sittani boobu ñuy sol. waaw. te jëlee ko donne ko ci Cheikh Abdoulaye. du ko aat sumee dafa fekk seen tubaab mu si koo mm. amuloon meneen mbubb. waaw. mbu mbubu tëni boobu rek. amuñu benn mbubb. te ñu liggéeyal sëñ Bamba la amuñu amuñu meneen mbubb. Mhm. meneen mbubb la is am. Mhm. muy mbubb mi mu sol di liggéeyal sëñ Bamba. Mhm. bu guddee moom la ñuy fanaanoo bu bu fajaree moom lañuy ñuy xëyee. loolu rek laa leen bëggoon a dolli. ni ku nekk war na leen cee waaye nu dalal xel yi. junni juróomi junni aadoo ngi wallaahi. sëñ sëñ Tuubaa dara des ginnaaw. wallaahi. làpp sondeel bu fay. sëñ bi tànn beneen. Mhm. la newoon ci ñoom Cheikh Abdoulaat moo ko ci def. wallaahi bu fekkee dëgganu daf Cheikh Abdoulaat la kenn mënut a xëy. Mhm. li Cheikh Abdoulaat defal Serigne Touba. Mhm. liggéeyal ko segg Touba. te ñëpp siraatal mustaqim lépp njub. koo dajee léegi cooy nga dégg mu ni bu bu xel yëpp ci bàyyi laat la ñuy dem. wallaahi wallaahi. bu dee wax ci rajo bi boo dee dox da ngay toog. boo taxawee yegg foofu. bu ne dama ne du romb juróomi minute. te bu coupé ñëpp def. tey Hizbut Tarqiyyah fu mu dem grâce ak Cheikh Abdoulaye. Cheikh Abdoulaye yàlla nañu ko yàlla fayal. amiin yaa rabbal aalamiin mbàkk bala. jàmbaar la jooj ba nit kenn du fàtte Cheikh def na ko rajo yi télé yi sax ni mu bëree Cheikh Abdoulaye sax. Mm-hmm. ba mu téye rajo yi ni na coow yi bari mu ne nañ ko ne ba ca Guinée wala ba ca Mali. Mm-hmm. ca la lam lam bëgg ko sëñ Bamba ku ko jàkkaarloo rajo yi sëñ Bamba yi. wallaay télévision yi ni gàñ ci biir réew mi. aatu mm-hmm. euh, euh, euh, njëmbatal sëñ Abdoulaat la. ñëpp na nag ba ku ne toog ci këram. ñëpp na ba ku ne toog ci kër gi. wallaay dëgg la waaye sëñ Abdoulaat sëñ waaye sëñ Muntaxa mii nag la waxoon ni ko na ko suuxat. waaw. suuxat ko bay sëñ Tuubaa mu ànd koog moom. Mm-hmm, mm-hmm. kon ñu dalal xel yi moo tax ma dellu si. Mm-hmm. aatu ci is bu tërxee bu sukk am na benn bis. ci Touba. màggal jot ba yoor yoor sëñ sëñ Saliou dé sëñ Saliou di déggul benn yoon njàngum xasida bi lañ ma wool aatu. aatu jël Hizbut Tarqiyyah ñu song ko sëñ bi sol ko ba mu fees sëñ ni bu leen te rax. ndeysaan. xasida yi sëñ Bamba yi rek laa bëgg a dégg. ndeysaan. aatu aatu mi daal bi. Mhm. dëkk bi mel na dëkk. wallaay ndeysaan. sëñ Saliou génn toog ci njowaan ji jàkkaarloog ñoom. Mhm. yor yor màggal. ci ba ñu noddu tisbaar. sëñ bi toog di leen déglu. ci. aatu moo doon wéttali Asu ah, moo doon wittili moo doon wittili Cheikh Abdoul Khadir. Uh-huh. ba Cheikh Mamadou Lamine Baara ak Cheikh Idil Maxtaar ku toogal sëñ Bamba rek Asu ah, naa ko suñu toroxee liggéeyal la. wallaahi. bu joxee addee nag nga dee ne bu ko jógee dootu am dara day fàkku juróomi téeméeri minute ci genn gaal. waaw ko joxe gileem yi mbaj yi matériel bi. loolu la Asu doon def moo tax ma ne Asu kenn mënu ko ci addee. wallaahi. te te murit ñàkk ak joxe. Uh-huh. murit ak joxe. Uh-huh. waaw. Euh, euh, euh, Mansour tey mënatuma ndékki. wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan. waaw sëñ Tuubaa rek a nekk. wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan. ànd ak moom toppum siti la. ah lépp ku sëñ Bamba toppum la ca sëñ lay gën a aay. ca siti lay gën a aay. wallaahi ndeysaan waaw xool suñu ndeysaan wallaahi ndeysaan. xool maam Cheikh Alioune Fall daabay maam Sëñ Ndiaye borom waxi njabi. Uh-huh. bul ma ko lim indi sëñ Daaru Assane Ndiaye. Uh-huh. indi Cheikh Issa Diène indi sëñ Madou Gueye Jëmmooy. Uh-huh. indi sëñ Mad Lamin Gay hmm. sëñ Balla Faali Ndoxol hmm. sëñ Bamba mën a defar xam nga nu mu doon def hmm. ko rab bu wala géwél bu bindiloo ko kaamil ah? fekk doomi soxna bu awloo ko sëñ Mat Jóob Masamba taaw sëñ Masamba Jóob Saam da ko awloo moo tax ñee ñu yëpp jiblu ci daal saam fekk doomi soxna fekk géwél bu war a woy wala mu tëgg wala mu fukk ndëndam bind loo ko kaamil. Mhm. ubbi ab dënn. moo tax Seex bu Xaadir wax na ma ko benn bis nee na ma la la sa ñëpp la sa laa def ci yow fekk bu ràbb wala géwél mu bind loo ko kaamil fekk doomi soxna mu aw loo ko. te. kon nañu ubbi sa dënn def ci koo koy Sëñ Tuubaa. yéemu te dara. Mhm. di mbokkum yu baax ñëpp. loolu nga wax ci diggante aato mu ñëw tiyaawoon ca kolog ba mhm. Cheikh Mouhamadul Muntaxa tontu ko ko mhm. digganteem ak sëñ Babacar Si Mansour mhm. ñoom ñaar kenn na leen jur moo tax ñu mën a ànd noonu wallaahi waaye daal ku liggéeyal réew mi dem na ku liggéeyal sëñ Bamba dem na waaye tey daal mu xam di sëñ Tuubaa mën a fay wallaay daal nga dégg buur suñ ko mën a dafa génne mantoom doon ca taabal ja ni gouverneur général Gelwaar laa jàpp ak julli laa xam sëñ Bamba munut maa seen ànd ak juróom-ñaar fukki gawar ñaar nag garde ñëw daaru mën naan bëgg a bëgg a wattu sëriñ bi sëñ bi ne ko bàyyi maag yàlla mu wattu ma mhm. waaye bu yomal xëyaa men xadimaa la dàq seere ndeysaan koo koy xaadima Moustapha wallaay jërëjëf continué leen